alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala na mu benn buur bu mu war a bu dul moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baal àq tey ñaan borom subhanahu wa bokk ñu njëggal ñépp mbokk yi sunu xutba mi ngi jëm ci yenn ci mandarga yi nga xam ne dana tax suñu borom nangu jëfi jaam bi yenn ci mandarga yi nga xam ne dana tax suñu jëfi jaam bi mooy min alaamati qubulil amali saalih jëfi jaam nga xam ne nag maanaam jëf ju baax la moom la ci jublu mbokk yi maa ngi leen di dénk ko dénk saa mbokk ñu bokk ragal yàlla ñun ñëpp yàlla mi nga xam ne mooy aju bind sun te kenn ku moom du moom keneen yàlla rekk la yàlla moomu nag ñu war di ko bàyyi xel ci suñuy wax ak suñuy jëf su nee nag màndarga yenn ci màndarga yoo xam ne dana waral suñ borom nangu jëfi jaam bi nga xam ne ñu ngi jëf jëf ju baax ndax jaam bi ne ci àdduna di jëf li muy jëf yaakaar yi ci njëkk mooy yàlla nangu ko waaye jëfut ngir yàlla bañ koo nangu li muy jëf ci jëf ju baax yi muy jëf mooy yaakaar yi ci jiitu mooy suñu borom subhanahu wa taala nangu ko te bu ko yàlla nangoo ba noppi nag tegtal la ne jaam bii kat ku yàlla bëgg la ku yàlla bàyyi xel la nit ki li muy jëf li ci lim ci njëkk sóoraale mooy yàlla nangu waaye bu yàlla nangoo jëf ci nag nangu jëfub joojee suñu borom nangu nag day teg seen jaam bi kat ku yàlla bëgg la subhanahu wa moo tax su day li na ayaat nee na woon yàlla du nangu suñ borom du nangu mukk ci jëf lu dul jëf jën sellal waaye ginnaaw bi nga ko sellee na nga jubal kon lépp loo xam ne nit ki da koy jëf bokk yi na ko sellal ngir yàlla na ko jubalit ngir yàlla sellal gi ngir yàlla mooy li ngay jëf na yàlla képp tax bu ma sàmba tax bu ma demba tax bu dul woon jiw ci jëf ju yàlla ju yàlla tax nit du ko wax maanaam bu dul woon jiw du ma la defal nangam kon jiw a tax yàlla taxut bu dul woon ak diw du la jox nangam kon diw a tax yàlla taxul bu dul ak sëriñ bi duma la jox nangam kon sëriñ baa tax yàlla taxul kon li ngay jëf na yàlla rek a tax bokk na ci li tax jëf sell waaye bu sell bu borom sellalee jëf ja ba noppi na ngay jëf na doon ak jub te ak jub nag mooy tax ñuy wax ci waaye ak jubati moom képp ku koy def seetluñu ca ak sell kon lay tax ixlaas bi am ci ak jub lay doon kon la ngay def na na doon ak jub loo xam ne lu jub la loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana ko nangu lu jub loolu nag mbokk yi mooy li nga teg ci sunna alal kitab wa sunna tegoo ko ci sa xalaatu bopp tegoo ko ci sa xelum bopp li nga koo teg fii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane gannaaw bi ñu ko banloo ci alquran bari na lu di jëf lu bari xamul lu ci àttam lislaam xamul lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe loolu nag ab jullit da koy maytandiku jullit bu ci nekk li ngay jëf del jéem a gëstu lan moo ci lan la ca diine wax ak lan la ca diine waxul mooy tax nga mën a sellal jëf jooju moo tax suñu borom wax ne innama yataqabbalu llah min almuttaqin bokk na ci yi yàlla di nangul seen jëf mooy ñuy jëf jëf joo xam ne day ànd ak ragal yàlla bokk bokk na ci mandarga yi ni suñ borom di nangoo jëf mooy dolliku ak jaamu mooy fun la fekk rek loo def ci lu baax rek xeeb ko loo def ci lu baax xeeb ko moo tax alxasan al yi wax na ne euh, bokk na ci li yàlla di faye lu rafet lu rafet dong gannaaw li ngay def li ngay def saa yu rafetee jëfin wa sell la la ca yàlla di fay gannaaw bu lu rafet dong lay doon waaye nag bokk na ci li yàlla di faye lu ñaaw gannaaw ba mooy am ndax li ngay def bu fekkee ne mbugal la ca war a topp yàlla am mbugal doo nga la in faye inna min al jaza inna min jazai al xasana ala sana baada wa min uqubati sayia al shay'a baadaha kon moo waral nit ki rek lépp lu muy def na jëfandu loolu su borom nag bu nit ki nan lay xamee ne yàlla ci boppam nangu na jëf ji muy bi ci jiitu mooy képp ku yàlla wërsëgale ngay góorgóorlu ci lu baax su ne allahu akbar kenn du la jiit ci ja fu nu wootee lu baax kenn du la ca jiitu bu laajee laaj boo xam ne ci yàlla la jëm la nga ca am nga def ko ca jëf yu mel noonu ku yàlla wërsëgale di la tawfiixale nga nga koy nangoo jëf rek yaa nga si yoon la rafetal jot na yow li nga jëf suñu borom na ko kon ku yàlla wërsëgale loolu santal yàlla kooku nag bu ko sumbar wërsëgalee moo koy loola moo koy xamal ne yàlla dana ko musal ci li nga xam ne ak moy la ak i ñaawteef moo tax alasan basari ba tey wax ne yow doomu aadama bi saa yoo nekkul ci yokk rek ci wàññi ko ci nga jëm bokk yi ku yokku da ngaa doomu aadama bu nekkee ci du ci dundam di dund tàmbalee fi masoore ba fi mu mag lu baaxam di gën a ëpp lu bonam dafa yokk waaye ki nga xam ne dafa nekk ci ci ci mesure am di jëm mag lu bonam di gën a ëpp lu baaxam kooku dafa wàññiku kon ku yokkut da ngaa loolu nag ñëpp ñëpp ñoo ci war a ba bàyyi wàll xel in lam takun bi ziyaada fa anta fi nuqsaani ku nekkul ci dolli ko rek ci ak wàññiku ku nga nekk kon nit ku ci nekk war naa xool jëmi boppam ba xam mi ngi dolli ko wala dolli ko wut misaal ku koy dund war ngaa xool sa bopp ba yow lu fi lu fi ci yow lu baax ak lu ci dolli ku ci baax soo xamee ne yow fa nga yemoon daaw rek nga yem ci lu baax xamal ne ak wàññi ko moo nekk ci yow soo xamee ne fi nga yemoon daaw kon yokku na xamal ne kon ak ziyaada moo nekk ci yow loolu nag jullit bi da koy bàyyi xel bokk na ci mandarga li yàlla di nangoo jëf mooy sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla ab jullit war a góorgóorlu sax ci yàlla te sax yàlla boobu bokk yi meññetal mu am solo ibnu kasir dafa wax ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala léeg-léeg mu def aaday kiraama mooy tëdd ngaam ci ab jaamam loola lan la koy defee mooy man aasha ala cheyin maata alayhi wa man maata ala cheyin bu'isa alayhi ku yàlla faat ci lu baax lu baax li nga nekkoon su la ci yàlla boo ci dee dund ba yàlla faat la ci boo ci dee dund su la yàlla dogalee yàlla mën nga cee faatu maanaam misaal li ma ko bëgg a waxee mooy nit ki sax ci lu baax mën naa faatu ci lu baax nit ci faatu ci lu baax it mën naa dekk ci lu baax waaye képp koo xam ne dangay faatu ci ñaawteef nga faatu booy dekk ci ñaawteef rek ngay faatu booy dekk ci rek ngay faatu kon nan góor ba bu nuy faatu nanuy faatu ci lu baax nañu fekk ci lu baax nañu fekk ci lu baax loolu nag jéem góor góorgóor moo koy may man maata ala shayin man aasha ala shayin maata alayhi ala shayin googu nag ala taa mooy ci topp ci lu baax képp kuy dund ci lu baax booy faatu ci lu baax ngay faatu waaye képp koo xam ne dundoo ci lu baax booy faatu mën nga faatu ci ci ak mooy ca donte xadis boobu ñu ngi naan du xadis saxi waaye mënees na ko tudde xadis targhib ñaari xadis yooyu ulama ul tafasir wal jar dañuy wax ne mënees na koy wax muy ak targhib wa tarhib targhib mooy li xeemem nit ci ci lu baax targhib mooy li koy tiital ba mu génn ci loo xam ne baaxu xadis bon la mooy la yonent bi sallallahu taala alayhi waxoon ne nit ki ni muy dundoo ni lay faatoo ni muy faatoo lay dekkee nit ki ni muy dundoo ni lay faatoo ni muy faatoo lay dekkee kon nañ leen góorgóorlu ba bu faatu di egg si ñun rek mu fekk suñu ci baax ma waral war na ni ñaan yàlla saa su ne buñ jullee yàlla may ñu mujj gu rafet wa awlina ya rabbana husna alxitaam inda almamaati wa gadan yowma alqiyaam yàlla nañu ko yàlla defal muy lu am solo mujj gu rafet moo mu solo lu mu ne lu mu mën a doon mujj gu rafet moo ci am naa ci nettali benn xista bu gàtt dafa am jënd jëmm joo xam ne dafa dugg ci oto taal benn bande musique am téere bu ndaw la boo xam ne arabi saudi lan jub seen ku ci xisa bi mi ngi ci bi mu taalee bande musique bi ci biir oto bi di déglu musique di déglu musique ba oto ba def soog accident bokk yi ñëw nit ñi ñëw di ko génne bi ñu ko génnee tiim ko di wax laa ilaha illa allah mun ta ba wax laa ilaha illa allah bi mu leen déglu moo nekk xol bi moom lay wayantoo di ko yëkkati ñuy wax laa ilaha illallah mënut a fexe ba wax laa ilaha ba suñu borom génn roogi mu faatu bokk yi kooku bu dekkee day musique wuti yàlla ngir lan musique la faatuwaale kon nag nit ki lu mu bañ dee ko rek ba mu ca nekk ma waral bokk yi ñu léeg nga gis ñu naan nit ki daa dem ba ca baal ba jekk-jekk daanu faatu bu dekkee ci baal lay dekkee de wala ci musique lay dekkee musique dafa xaraam kenn mënu la koo daganal ba mu dagal musique yi xew naka ci yow ba ci musique moderne yi xew musique moderne yii xew li may wax na musique moderne mooy tëgg meeg fecc meeg yi xew sandagar wala yeeg caxagun yi xew ak nga xam dañ koy boole ay tamaaki riteeg nangam nangam léegi la ñu daan tëgg naan ay tëgg kër la da dañuy jàng dañuy sikkar ak yu mel noonu ay musique moderne la yoo xam ne ñun andi ci jamono ji dara dagalu ci ndax góor ñaak jigéen ñi dong ñoo fay jaxasoo kon lu waay bañ dee fekk la ci rek bu bu ca nekk nañ ci góor moo waral ku bañ faatu ci lu naqar yàlla bul bul nekk ci lu naqar yàlla ku bëgg faatu ci lu baax saxal ci lu baax jamono jii nga xam ne moom dee gi daa gaaw ci yàlla du tàggoo noppi na kon saa su xëy rek war ngaa nekk ci loo xam ne boo la ci dee fekkoon sañ bopp dun rus dun am ker waaye sax ci loo xam ne tey jii bu la ci dee fekkoon yu ne ci nangam la faatoo sañ mbokk rus ab jullit doo koy maytaliku bokk yi am na benn waay boo xam ne dafa àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi di aji bi mu demee ba ci kaaba gi lu mel ne gilleen gin yoroon daal koy wéq mu yonent bi sallallahu taala wa sallam ne nan ko sàng ci ay mbalaanam yi mu soloon mooy yére yi mu soloon nan ko ci sàng daane leen ci faatu de boo liggéey bu dekkee day labbayka yu wuti borom bi subhanahu wa taala danaan labbayka allahuma labbayka labbayka la sharika lak inna alhamda wa ni'mata la sharika lak labbayka ndax ci ak ci ak labbayka wu la faatoo yonent bi ne bu faatoo bu bu dekkee ëllëg day labbayka wuti borom bi subhanahu wa taala mooy li ma la wax ci borom musique ba bu faatoo bu dee dekkee la day musique wuti yàlla xaw ma morso bu mu doon wayantoo nag moo xam bu waykati jamono ji la wala baneen ak baneen ak baneen moo waral lu waaye bañ dee fekk rek ci bokk yi bu ko def gis ngeen kii bi mu faatoo yonent bi ne ko sàng ay yéreem ca xam na bu dekkee day la day la day ko wuti borom bi subhanahu wa taala bokk yi bokk na ci mandarga yi suñu borom bi nangoo jëf mooy ngay sellal sa xol ci bépp tawat wala bépp tilim tilim boo xam ne mi ngi ci loolu nag dana yóbbe nit ci ci bëgg yàlla dana taxit mu am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala del jiital sàkk ngërëmal yàlla ci leneen lu dul moom di fa séenee bàyyi ay isaar ay jeexital yoo xam ne yàlla képp moo tax nga di ko def ba bu àllëgee mu jëlee fekk foofa lépp lu dul ngërëmal yàlla nga bàyyi ko fi wuti ngërëmal yàlla te booy bëgg nit nga bëgg ko ngir yàlla te bàyyi iñaan ak mbañeen ak sibéen te xam ne mbir yépp mi ngi ci loxoy borom bi subhaanahu wa taala loolu lépp nit di ko war a génn ci ab xolam ab jullit bokk na ci tax yàlla dina ko jëfe mooy bu mu iñaane kenn bu mu bañ kenn bu mu soxore kenn bu mu xeeb kenn na jàpp ne lépp mi ngi ci yàlla waaye bari na ci jullit yoo xam ne wallaahi asim dañuy dëkk ak yow ba bëgguñu laa gis bis bu ci nekk tamit ñu ngi créer problème bu tax yow nga am problème bis bu nekk ñi ngi seet lu luñ la tuumaale ba mën a taxal sa der te ab jullit lay doon comme yow ngeen di bokk di yeewandoo ndax iñaan bu nekk ci moom te idil xasad laa yasuud ab ku iñaan du doon ab sang mukk te ki ngay iñaane bu yàlla dogalul nga mar ko war koo iñaane suñu borom nopp na ca moom kon bokk na ci li tax yàlla di nangu jëfi jullit bi mooy mu génne ak mbañeel akuk iñaan akuk soxor dégg nga akuk bon ci ab xolam ci moromu jullitam te ku muy bëgg na ko bëgg ngir yàlla ku muy bañit na ko bañ ngir yàlla waaye buñ bëgg mukk ngir intérêt àdduna képp koo bëgg ngir alal bisa ngi ñëw mën na am problème am ngeen teqali ko waaye soo ko bëggee ngir yàlla léppul problème bu dikkit boo liggéey du ngeen du ngeen teqali ko te li ci doomu aadama yi intérêt lañ toppee nit waaye toppatuñ ko ngir yàlla soo amee ñu ne yow boo waxee lu dëgg ñu ne wala nga wax dëgg la boo tisteeloo ñu ne yarhamukullah alal jaa tax waaye boo ñàkkee alal ja dootu dootu dootu ñu laa gis moo tax ba ànd ak nit da nga bu dee xarit te kon nan fexe génn ci suñ xol yi soxor iñaan bon li am ci jamono jamono ji nag daanaka loolu mu desee bari moom nit yàlla la koy defal dara képp yàlla defalu ko nga bëgg ko iñaan loolu ngeen bokk benn ndey wala benn baay ngeen bokk génn kër wala benn penc suñ borom jox la maqaama mu ko joxut wala mu defal lu mu ko defut nga ne du fi amee yaa nax sa bopp wa ma lam yakun laa yuridu an an an yaxta ana sëñ na lu yàlla lu yàlla teg damu aadama bi su borom mu nëmmut mu may doomu aadama bi waaye lu may doomu aadama bi yàlla nëmu në nëmmut loola mu teg doomu aadama bi ab julli foofu lay nekk lépp a ngi ci loxo yàlla al umuru a ci loxo yàlla amul kenn len lu nekk ci loxo yàllaa yor lépp kon yàlla mi def na la dafay yow jullit bi yaa nar a sonn leen yéenante jàmm te bëggante ca soppante te xol yi yaatu te kenn ku ci nekk la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom ku tane sa morom dimbali ko te bàyyi soxorante beeg iñaanante geeg boddante beeg waxante lu ñaaw ak yàqante der bi loolu moo xew ci àdduna bi kenn yéeneetu sa borom sa borom lu rafet ab bokk na ci kon li tax jëf nangu mooy lu baax kenn ku ne gën ci sa xol lu bon bokk yi bokk na ci tamit li tax suñu borom di nangu jëf mooy ñi fàttaliku ëllëg yowmal qiyaam akbar taxawaay ba ñu taxaw ci suñu diggante ak suñu borom laaj yam ñuy laaj ñu war koo tontu loolu lépp bokk na ci li tax jëf nangu ku ko nag lu am solo la rawatina nag fa taxaw gi ñu war a taxaw ci diggante suñu borom subhanahu wa taala loolu moom baye boo ñu di ko fàttaliku saa su ne te kenn ko ci nekk da taxaw ci suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala suñu borom dana la laaj ñett li ma faal li man faal kay fa faal li ma faal mooy ana sa nga daan jëf li man faal ku taxoon nga ko def kay fa faal noo ko doon yéppay tontu bu boobaa kon nag nañuy fàttaliku ëllëg fàttaliku yowmal qiyaam te fàttaliku taxawaay boobee te xam ne mi ngi ci kanam te ñun ñëpp kenn ku ci nekk dana ci jaar te kenn ku ci nekk bu boobaa bàkkaar bu ndaw bu mag ak yëpp danaan fàng-fàngaaral fii nag la nëbbutu am moom di wax def loola neex fii la nëbbutu am di wax loola neex fii la nëbbutu am def sa vidéo sànni ëllëg yàlla suñu borom yaraal kul la faraaqibu lépp dana dana dana fàng yow ma tubla sharairu fa maa lahu min naa naasir secret yépp nan fàng ci biti yàlla moomu nag moo jër jëra nëbb waaye doomu aadama jërul nëbb dara yàlla képp jërë nëbb ndax lépp loo nëbb lépp loo xam ne dama doomu aadama sax moom moo jërë nëbb laax yàlla jërë ta nëbb laa bëgg wax doomu aadama képp moo jërë nëbb yàlla moom jërum nëbb dara yow ma tub la sara yi la wax c'est ci biti ñëpp di ko gis kon doomu aadama moom jër na nëbb waaye nag li nga koy nëbb nëbb nëbb bàyyil xel yàlla yàlla mi nga xam ne boo nëbbee doomu aadama mi gis li ngay def kooku moo jët bàyyi xel kon bokk na ci li tax ya sumborom na gu jëm ñu bàyyi wàlla xel loolu ëllëg fa dem na ayaat nee euh, benn waay dafa dikk mu laaj ko ne ko ñaata at nga am mu ne ko am naa juróom benn fukkat ak juróom benn maana am naa juróom benn fukkat daal mu ne ko juróom benn fukkat dem nag sëb dund mu ne ko waaw te yow boobu ba léegi ni egg ko ci yàlla mu ne ko déedéet ah mu ne ko kon nag bàyyi xel ne préparal laaj sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala waaye yi ne ko lu may def mu ne ko li nekk sa dund toll lépp na ko jéem a lépp na ko jéem a defaral rafetal su ko defee boo faatoo yàlla jéggal la waaye nag soo ko ñaawalee suñu borom dana jël lu ñaaw lu njëkk laa ak lu mujj yépp boole boole boole àtte la léegi nag xoolal kon kenn ku nekk ci ñun lu des sa dund mbokk yi te xamul kenn kenn xamul kañ la kenn xamul nan la kenn xamul fan la jéem ko rafetal yonent bi sax sa wax na benn xadis ne ay suma chita fa innaka mayit am nañu ne xadis bi sax maanaam raawi bi ci boppam isnaad bi du isnaad jayid mais am na ñu ne ci biir xadis bi xadis bi isnaad jayid la dafa am ixtilaaf yi ci am waaye li am solo mooy matnul xadis bi ak maanal maanal xadis bi moo am solo maanaa maanaa mi ne ci biir xadis bi rek lu am solo la yonente bi nee na isma siita dunda lu la neex fa innaka mayitun bisa ngi ñëw da nga faatu wax bi man siita soppal ku la neex bëgg ko muy sa xarit bisa ngi ñëw da nga ko moom waa amal maa siita defal lu la neex bisa ngi ñëw la nga jëf dong la yàlla di fay kon nañ ci góorgóorlu kon fi ñuy mujjantale bokk yi mooy bokk na ci mandarga yi tax suñu borom dina ngu jëf mooy na ni sellal jëf ci ngir yàlla te buñ ko def ngir doomu aadama doomu aadama bu tax ngay jëf soo léegi da nga ko perte suuf ci kaw suuf la nit suuf ci kaw suuf la doomu aadama suuf la di dox ci kaw suuf suuf si dox ci kaw suuf mooy nit suuf di dox ci kaw suuf mooy doomu aadama ndax ci suuf lañ ko defaree ci ban bu faatoo tamit ci suuf lañ koy tàbbalaat soo léegi ñu génne waat ko ci suuf minha xalaqnaakum wa fiha nuiddukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra kon booy jëf bul jëf ngir doomu aadama wa amal li man ida amilta li tari daaw muy borom bi subhanahu wa taala kon sellal ngir yàlla bokk yi nañ ci góorgóor bu baax a baax ci zahir ak baatin suñuy wax suñuy jëf suñuy yëngutu moo tax suñu borom wa ma li ahadin indahu lu mu cay jublu irtiqaa wacc rabbihi nit ki lépp loo xam ne bëgg na ëllëg suñu borom fay ko ca na ca sàkku jëmmi suñu borom subhanahu wa taala wa ma umiru illa li yabudu allah muxlisina lahu diin wa innama al amalu binniyat wa innama likum imriin ma nawa yal na nu yàlla dafa dégg ak topp yal na yàlla jéggal suñuy bakkaar yal na nu yàlla may saadat ad daarayn yal na nu yàlla may ñu dund ci lislaam faatu ci lislaam lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf suñu boroom gërëmu ko yàlla na ko yàlla gërëm bala ñoo faatu bu ñuy faatu yàlla na yàlla may fan maanaam mujj ko rafet suñ suñu fan bu guddee yàlla na yàlla gudd ci lislaam lu ci nara a dëng ci taq ci biir lislaam yàlla ñu ko yàlla faxasal balaa booba yaxfirullahu lana wa lakum wa li saari muslimin amin